prison yi nit ñi de maanaam loolu moom li koy faj mooy ñi ngi war a aar nit ñi comme ñi war a aar nit ñi mooy police yi ak takk der ak gendarme yi ñoom ñoo war a def seen liggéey buñ ko defee xëy na ci bari mën naa saafara waaw xanaa jaaxle bu wér a wér rek comme ni mu jaaxalee waa réew yëpp parce que <clears throat> information bi moom comme ni ko ñëpp di jote wax dëgg yàlla dina métti teew quoi ndax dégg nañ li xew dakaar muy rëbës dégg nañ bu yàggu tamit bi xew njaarim yi ci bari moom lu ci jàll ñu ngi koy réew mi yëpp koy réew yëpp tamit ah, ñu ngi koy ñaawlu rawatina ñi nga xam ne ay mandaa dépôt lañ yoo xam ne buñ demee ba ci dañuy génne ne maanaam ñoom defuñu dara xam loolu tamit lu métti la ndax am na ci ñoo xam ne ay borom njaboot la ñuy doon am na ñoo xam ne ay responsable am na ñoo xam ne tamit donte doonuguñu dara sax ay doomu aadama lañ yoo xam ne ñu waroon a mën a jëriñ askan wi lan te xaj na erreur moo leen fa yóbbu kooku ba ko tegee mën naa de ba mu def fay at wala ay weer daanaka mën naa génn découragé ci avenir am loolu tamit wax dëgg yàlla war nañ cee mën a am ay gëstu bu baax a baax ba nga xam ne ah, donte dañ koy sensé mu bañ a nekk mandat dépôt wala ñu jox benn limite bu ndaw boo xam ne danañ la àtte xam ne yow dangaa yaa def wala defoo ñu téye la wala ñu bàyyi la nga dem liggéey loolu su amee rek ki fa jaar ba génn dina soññ ay moromam dina jox information ay moromam yu nekk foofa yoo xam ne moromam yooyu dootuñu xalaat def lu mel ne lan defoon te loolu day nekk loo xam ne dana jëmale askan wi kanam. waaye nag dañoo waroon a defar maanaam ay prison yoo xam ne maanaam dana yaatu nga xam ne nit ñi bu ñu fa nekkee duñu am benn problème. bu ko defee maanaam ah, kaso yi yaatu nga xam ne képp ku ci dem koo xam ne maanaam nekk nga ci da nga fa nekk ak sa jàmm ak sa salaam bu ko defee lu la fay war a fekk lu ne fekk la fa maanaam bu sa buñ la waree àtte àtte bu fekkee da nga faa dem ñu àtte bu fekkee da ngaa tooñ ñu teg la yoon bu fekkee tooñoo maanaam ñu seet nuñ def ak yow ba mën laa libéré nga mën a ñibbiwaat sa jàmm. vraiment euh, xanaa ñi xam ne ñoo jiitu tey nekk autorité leen di ñaan rek ñu defaat ci ay gëstu bu baax a baax a baax ndax war na am ay yeneen matukaay yoo xam ne mën nañ ko waajal yoo xam ne même bu dee eh, pisoñe yi mën nañ koy am te duñ ci <coughs> lor yenn lor yi ba ci faatu moo gën quoi ndax faatu moom su àggee ci pisoñe rek daanaka liñ ko tegoon ëpp na ndax pisoñe taxut a bon donte nag am na yoo xam ne kenn mën leen yërëm mais nag am na ñoo xam ne erreur moo leen fa yóbbu ñooñu nag bu ñu bokkee ci ñuy loru day nekkaat beneen problème. conditions yi moom maanaam ci sama xalaat mun ta baax ndax Sénégal moom àggul foo xam ne dañ fay mën maanaam di defar ay conditions yu baax waaye nag am na ñoo xam ne mën nañ cee def conditions yoo xam ne dana tane ba nga xam ne ko fa nekk maanaam da fa nekk ci jàmm ci salaam waaye nga xam ne comme ni ñuy def nii moom. maanaam nekkul jàmm nekkul salaam. ni ñuy dégg prison yi moom euh, rawatina Dakar mel na ni euh, kaso yi moom dañoo Euh, jabar fi nii. ndax nañ fay nekk nii dafay xaw a metti te am ñoo xam ne dañu fay xaw a xataal te am na ñoo xam ne maanaam seen seen seen seen jom mayu leen yenn nii ñu di leen koy def. am na ñoo xam ne buñ leen ko defee sax jar na leen maanaam xaru te loolu lépp mën naa ñàkk léegi daal li ci li ci gën a wóor daal mooy nañ jéem a dimbali askan wi maanaam képp koo xam ne mu jàpp ni la maanaam ñu teel laa àtte buñ la waree àtte ñu àtte la buñ la euh, mën a gën a àttee itam maa ñu teg la foo xam ne maanaam daañu mën a aar sa kaaraange ba dara du la mën a jàpp.